di ko ànd nag ak comité comité bi nga xam ne ñoom ñooy saytu màggal bi comité d'organisation bi njiitul Cheikh Mouhamadou Bachir moo moom Sëñ Abdou Khadir jataayu tey bii nag doon bu am solo ñu ànd ko ak borom xam-xam bu mag ñaan suñu borom mu sàmm ko Sëriñ Fallou Boussa Hassane doon koo xam ne deesu koo xamlewaat fii xam nañ ko fi bu baax a baax waaye tamit di feddle ak cant ci moom ndaxte daayira bi am na ñu muy jëflanteel ci yu mel nii moom daa bokk ni ci gën a fës mësta taax euh, tanxaam lu xanaa tanxaam la ñuy wax tanxaam lu wala boog yeex a wuy si woote daayira bi saa yu ñu ko woowee mu ñëw amale ko ci anam boo gën a rafet loolu nag digganteem ak daayira bi la waaye daayira bi tam da cee gis boppam ndax it liggéey moom amul secret képp ku la sàkku ci yow dara def ko nga def ko mu defloowaat la ko mooy bu njëkk bu baaxoon nag moom bu ci amee den lu cee lii rek day soppi day soppi defkat kuy tabaxloo kuy mécanicien ku ma doon koo delluwaat rek moo dañ caa gis sa bopp kon nag daayira bis na ci boppam ba tax na mi ngi koy yeesal ak sant di ñaan suñu borom mu sàmm tey nag tomb bi nga xam ne la ñu waxtaanee nekk tomb bu a am solo tomb yëpp am solo waaye bii di cee raw tomb bii mooy li ñu boole ñun ñëpp tomb bii mooy murit gi murit gi ak murit yi nag. jege na waaye benn bi daa dugg ci bi ci des bu ñu xamee ne ren mooy téeméeri at bi fi ku baax kii ñu ko noppee gis ak suñu gët ba tey téeméeri at nag ci ab dox bu kenn xamul fu muy yem néewut buñ ci àggee war nañoo am taxaw seetlu taxaw seetlu ci suñu nekkin ñun murit gi moom moog lislaam yam du soppiku ndax ku ko tënkoon da koo tënk ci loo xam ne day nekk lu mën a wéy ci jamono ju mën doon ak waxtu mu war a mën a doon ak ci ron asamaan su mën a doon waaye nag murid yi ndax ndax ñoom léeg du du jar ñu jékki-jékki taxawaat xalaataat ndax loola tënk booba mooy bañ bañ nekk tey ak ndax amul du jar soppi ci doxin yi wala am na loo xam dañ ko war a gën a dëgëral maanaam daal di tubaab bi wooy état des lieux càmbar suñu tolluwaay tolluwaay boobu nag ngir ñu sàmbat ko il faut ñu xam yoonu murit nan la sosoo ak fu mu sosoo ci yenn circonstance ay zuruuf la ko ku baax ki sose yan jéego la jot a dox ci jamonoom ku baax ki bi mu fi jógee ba tey jéego yooyu fan la toll ak fan la jaar ak leneen lu dul yoonu murit mbir mu ne day am ay point fort am ak point yoo xam ne mën naa gën a fort murit gi nag xam naa léppam point fort la doon waaye du ñàkk yoo xam mën naa gën a fort yoo xam ne daal def nañ ko ñëpp xam ne lii moom jan na ba jéggi day waaye am na yoo xam ne mën naa gën a jar yooye ak mboolem yi nga xam ne dafa bees nga xam ne dafa ñëw ginnaaw murid gi dafa am bu yooyu amee nan la ci murid gi taxawee ndax loolu da koo absorbé boole ko ci boppam wala da koy foñ ne du du ci am euh, walla nan la ñuy jëflante ak yooyu loolu nag ñi ñiy dugg si ci lañ li ñuy duggaale ci la bokk buy waatu di wéy fu ci ne bu fa demee dana fa fekk dara nan lay jëflante ak yooyu loola tamit ci mbir yi nga xam ne du ñàkk suñ suñ suñ fàllu dana ci euh, accès dana ci bokk kon wax naa léegi ne yan mooy suñuy point fort ñun murit gi murit gi moom wax naa li lépp point waaye ñun suñuy suñuy point fort ñun fan lañu avancé ak fan lañu war a gën a defaraat jàpp naa man naa bàyyi xel murit gi ndax ni mu mel tey bu ñu jëloon kenn ca mag ñi fekkoon ku baax ki fekkee nos ba nañu wax suñu Mbàkke Buso mi nga xam ne dañuy wax ne nee na masaalikul jinaan kenn gënuma koo dégg ndax kii ko bind moom ma ko jàngal te te bu ko njëkkul jàngal xam naa ne te ñoom ko njëkk jàngal la bokk ndax moom bu ñëwoon tey ñu ne ko lii muy mur gi ndax danaan nañ jooyanti jéego yi wala danaa nii baax la ku baax ki fa mu toll di ñu gis bu teewoon tey wax ñu directement lan la ñuy wax danaan lii du la ma woote woon wala mooy lii lii baax na wéyal leen yaakaar naa loolu question la boo xam ne ku ci ne war na koy man di posé wu suñu fàllu question yooyu point yooyu lañ bëggoon boo ci dollee nag benn tomb boo xam ne gis naa nga koy faral tudd see waxtaan di wax ne nañ bàyyi xel ne téeméeri at am na ginnaaw bi fi ku baax ki jugee ak léegi téeméeri at nag ñun ñi nga xam ne ci ay jullit lañ dañoo jàng ci téere yi ñu ne lislaam moom du soppiku waaye saa yu amee téeméeraat dana soxla kuy ñëwaat yeesal nit ñi fàttali leen na yoon wi nii la boobaa nag ki nga xam ne moo moo sosoon yëf yi bu fi jógee ba am téeméeraat ndax ku mën nañoo xaar ak yeesal ndax yeesal googu day am ku ñëw ku wees tàq de yeesal ko wala beeg yeesal gi ci biir lay amee ak buy am yan tomb lay am yaakaar naa ne mat naa euh, mat naa xalaat question yi daal ak yeneen yoo xam ne suñu Fall dina ko tudd bu soobee yàlla lañ fa yéenee waxtaan ak moom xam naa ci lu weesuwul ñeent fukki minutes ak juróom ndax bu jàllee du ñàkk am na kàddu yu fi euh, nar a jib incha allah euh, ndaxte comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi waxtaan wi dañ ko ànd ak comité bi nga xam moom lañ dénk lu jëm saytu màggal gi ñoom it dinañ ci am kàddu Cheikh Mouhamadul Bachir moom suñu Abdul Qadir du ñàkk dana teew ci kanam bu teew ci ndawam dana fi jël kàddu Euh, comme ni nga xamee daayira bi tamit euh, ci loxo la nekk njiitu daayira bi wala ku ko teewal moom it dana jël kàddu kàddu cant yi gën a doon xam naa ne mboolem ñi nga xam ne ñu àndawum liggéey bi moo xam ci tey wala ci li ci li weesu suñu fàllu kon ñeent fukki minute ak juróom kàddu gaaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe bokki jullit yi ñoo ngi tàmbalee kàddu yi ci nuyoo ak ziyaar jiite ci alxalifatul am lil muridina Cheikh Mahamadul Muntaqa ñaanal suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naanam waaye di ndokkee mboolem jullit yi rawatina taalibe yi ci weeru mag wi ñu dugg te weeru safar tey dox jëm ci fukk yeeg juróom-ñett di ñaan àgg ci jàmm ak salaam te mën koo doxale kem ni nga xam ne nii ki ko santaane noonu la waxoon ñu doxale ko noonu di la nuyu bu baax sëriñ Modou ci ni nga laytaaye jataay bi waaye jaar la ci suñu nuyoo ba àgg ci mboolem ba daayiratu muqaddamatul xidma ni nga ko wax ci biir laytaay bi nag laytaay ji nag mbooloo mi dañoo sàkkoon bu ñëwee ñu waxtaan ci yoonu murit ab doxam téeméeri at gannaaw bu ñu sëñ bi wanee gannaaw loolu mooy solos waxtaan ñu tàmbale ko ci nag gis ne ñaar guddi ñaar fukki fan ci weeru tamxarit wii ñu weesu mu tolloog atum 1446 ci guddi googu ci la Sëriñ Tubaa def téeméeri at gannaaw bu mu delloo ci boroom subhaanahu wa taala muy guddi koo xam ne nii xew-xew bu rëy xewoon na ci histoire du ko fàtte ba mukk waaye tam mag ñi ko teewe woon tam du jóg ci seenum xel mukk waaye ñun ñi ko teewe wuutoon day mel ne dañ koy jineer di gis mettit ak yëg-yëg bi nga xam ne nii moo wàccoon ci kaw muri yi bis bañ leen waxee ne sëriñ bi dellu na ci boroomam moo tax guddi googu yëg-yëg yi magi murit yi yëngutu woon na lool ba kawe lool bali liy xew ci jotaayu murit bu nekk xewoon na ci guddi googu mooy guddi gi ñuy waajal sëñ bi ngir delloo ko ci këram gu mujj fi muy noppaloo am na ci magi taalibe yi koo xam ne demoon na ba loola mënatu koo dékku mu daldi def ni murit yépp def daldi yëkkati kàddoom gu kawe lool ngir wane yëg-yëgam waaye meneen mag mu nekkoon ci wetam wax nañ ne moo ko jàjj ci kàdd gu kawe ne ko diw xanaa xamoo ne bañ ñuy defar bisub tey bii moo taxoon sëñ bi dañu defar kàdd googu nag dafay am lu muy tegtale lu am solo moo di ne taalibe bu nekk war naa xam ne kon la taxoon sëñ bi di ñu defar mooy wëyal yoon wi mu rëddoon kon nag lu ko tàmbalee ci guddi googu taalibe bi nekk na xam ne warteef la wuñ gàll ci loosam mu sàmm njàngale ak ndono li nga xam ne nii moom la fi sëñ bi bàyyi woon loolu benn taalibe waru cee nekk moroomum taalibeem waru cee nekk keneen tam waaye ku nekk ñu jàppal ne ba ñu sëñ bi wonee gannaaw ak léegi sàmm ndono li ak njàngale mi ku nekk ci ñun daf laa war ku nekk ñu nit war a bàyyi xel ci ne téeméeri at ci ndonal islaam dafa am maanaa mu mag walla boog lu muy tekki lu am solo ci biir njàngaleem lislaam buñ delloo ci wax yonente bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàngale ne téeméeri at yu nekk ca njeexta la wala ca njëlbeenu téeméeri at ya ci topp dana am kuy beesal kuy ñëw ngir beesal mbirum diine ngir beesal déggin yi kon téeméeri at ab takk la bu am solo ci njàngalem lislaam ñun ñëpp na xam nañ te nangu nañ tam nag maanaam coono yu mag effort yu mag yi nga xam ne nii magi taalibe yi def nañ ko gannaaw sëñ bi ak nekkuk sëñ bi ngir tasaare njàngaleem sëñ bi te waruñ di ko publicité war a ñu koy propagandal waaye seen melokaan yu rafet yu baax yi woon ci ñoom moo tax ku leen masaan gis loola moo lay xëcc ba nga bëgg a mel ne ñoom loola moo lay xëcc ba bëgg a mel ne ñoom moo tax mag ñi toppoon sëñ bi ku nekk ci ñoom boo ko doon waxtaane man nga ne la mel mag waxoon ci doomi sëñ bi te mooy sëñ Moodu sëñ Moodu Bousso ba muy tagg doomi sëñ bi daf ne woon ñoom ñëpp ay biddiw lañu koo ci gis dangay ngay jàpp ne moom rek moo fi nekk mag ñi toppoon sëñ bit mën nañu wax ne ay kàngam lañu woon yoo xam ne ni koo ci dajal dangay defe ne kii rek moom la sëñ bi defal moo tax ñoom ñu daj ci lu mbag lu metti coono bu mettee métti ngir mën a sàmm waaye itam mën a ñoŋal jàngale moom tasaare waaye nag niñ ko xamee cëslaay boo mënte gis wala njàngale moo mënta gis bu ànd jamonoy dox bu yàggee day am yeneen déggin yu bees yu ciy dugg bu yàggee tam day am ëcc ay ëcc ay taawil yoo xam ne ni daf ciy dugg ñu ëcc koo ëcc ëcc ba dugal ci lu baree bari loo xam mën naa am bokk ci woon moo tax njàngale moo mënta gis bu doxee jiir mën naa am turu njàngale ma dafay des te fekk na lay dox jamono yooyu wuute naag la nekkoon ci cosaanul jàngale moo tax njàngalem sëñ bi nag muccul ci lu mel noonu ni mu dale lislaam dal njàngale yu mag yépp noonu la dale njàngalem sëñ bi moo tax ñu jàpp ne léeg-léeg yi ñu am ab taxawaay def taxaw seetlu ku nekk ci ñun nga nafaraat sa bopp def sa autocritique mën a xool ndax man ci yoon wi laa nekk walla ci ñal wi laa nekk loolu mënta ñàkk taalibe bu nekk léeg nga def ko ci sa biir def taxaw seetlu delluwaat ci njàngalim sëñ bi xool ba xam yow ci ñal wi nga nekk wala yaa ngi ci yoon xëy na loolu mooy tax waxtaan yu mel nii mën naa am soloom foofu lay dugg ni ko sëñ Modou waxee léegi nag danañ laal tuuti ci sosug njàngalim sëñ bi ak liñ jàpp ne moo taxoon mu sosu ak moom bi mu ko sosee ba noppi ba mu ñu wane gannaaw étape par étape ñu jël ko étape bu ci nekk ñu xool lañ koy xàmmee ak la ca xew gannaaw bu sëñ bi delloo ci boroomam tam danañ gis jafe-jafe yi nga xam ne nii ñi ñëw gannaawam di ay doomam te wutu ko jànkonte nañu ak moom ak réalisation yu rëy yi nga xam ne ni njaboot gi jëmmal nañ ko gannaaw sëñ bi danañ wax tuuti ci tomb yi nga xam ne ni gis nañ leen liggéey nañ ci lool waaye war nañ cee gën a mën a liggéey xoolit murit yi taalibe jamono ji ñu toll nii ban gis-gis lañ am ci ñoom par rapport ak njàngaleem sëñ bi danañ wax tuuti ci yeesal ndax war na noo yeesal war war noo yeesal ci jamono ji ñu toll nii bu ñuy yeesal ci lan la ñuy yeesal ak lan mooy la nga xam ne ni waruñ caa yeesal su ko defee nag wàcce kàddu gi tënke ko nag ci bu sëñ bi dellusi woon jamono nekk ci suñu biir ndax dana am lu soppiku walla dara du soppi kon loolu mooy tënku waxtaan wi bu ñu ko waxtu wi maye ngir waxtaan nag sosu njàngalim sëñ bi dañuy dellu rekk ci discours bu siiw boo xam ne ni Cheikh Mamadou Fadel moo ko defoon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1371 ci gàddaay gi dëppoo nag ak bisub dibéer di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 1951 sëñ bi daf ca doon wax lan mooy murit di ko jàngal taalibe yi mu ne xam leen ne yoonu murit mooy yoonu sunna soo xam ne nii ña sellaloon seen diine ñëpp ba di islaam sosoo ba léegi ña sellaloon seen diine yoon wañ jaaroon nee na mooy yoonu murit mu ne boo ko doon tënk mooy yoon woo xam da ngay jublu ci yàlla subhaanahu wa ci sa lépp te wan gannaaw leneen lu dul moom nga wan gannaaw lépp loo xam da lay tënk da lay yeew ci àdduna ak mbir yi suufe yi nga xam ne ni moo ne ci àdduna mu ne nag yoon woowu nga gis nag nga xam ne ba islaam sosoo ba léegi mu ngi fi nee na jamono ju nekk sunu borom soroto subhaanahu wa taala day wàcce ay nit ñoo xam ne nii ñooy ñëw di ko yeesal mu ne jamono jii ñu toll nag wala boog téeméeri at yi ñu toll dana indi imaam ju mat ju mag di boroom xam-xam bu mat sëkk di wàlliwu yàlla bu mat sëkk nee na téeméeri yi nag ka sunu borom wàcce jamono yooyu mooy ki doon beesal ci jamono jooju te mooy Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim mu ne nag ñi ko doon ak ñi ko doon roy di topp ci njubam ànd ak moom nee na nag sëñ bi bi mu duggee ci yeesal googu kuréel gi tuuti ñoo ñëwoon ànd ak moom mu tax kook ñoom lépp lum leen teg ci ay warteef ñu tegoo ko mu leen daan diggal ñuy jaamu yàlla képp te di ko sell daa soññ ci xidma ñuy liggéey liggéey bu coobarew di leen yar di leen jox ay jikko ak i teggiin yu mat sëkk waaye itam di leen soriloo lépp loo xam ne ni jikko yu suufe la ak yu melut na war a mel ci yitteem ju kawe yittee sëñ bi ju kawe Samour Fadel nee na ci lay yéege mag ñooñu ñu ànd ak moom lépp lu mu leen digal ñu def ko te du leen gis ci lu mu leen di tere mu ne mag ñooñu nag ci barkeb sëñ bi ci lañ àgge dëgg-dëggi àgg ci sunu boroom bañ amee li ñuy am nag nee na dañoo commencé di feeñal ay kiimtaan ak i xar baax ba ko nit ñi gisee nag gis kiimtaan yeeg xar baax yi ñuy feeñal ak seen jikko yu baax yi ne ci ñoom ak seen jagle yi commencé di tasaaroo nee na nag ci la ay mbooloo yu baree bari commencé di tagg di bàmbiku di ñëw ci njàngale mi di ci sóobu nee na mu daal di commencé siiw daal di commencé tasaaroo baatub murit daal di tasaaroo ndax képp ku topp ci gannaaw sëñ bi ñu tuddee la murit nee na moo tax ñu dem ba jàpp ne sëñ bi daa sos aw yoon tuddi ko murit waaye nee na sëñ bi sosul aw yoon dafa ñëw ngir yeesal lu fi newoon loolu taalibe bi nag na ko bàyyi xel kon baatu murit bi Cheikh Amadou li ko indi wooye guñ ko daan wooyee mag ñi toppoon sëñ bi bañ jàpp ne képp kuñ ko wooyee rek moom taalibe sëñ bi nga moo tax ñu jàpp ne sëñ bi daa sos aw yoon tudde ko yoonu murit mu ne nag foofu kon ci baatu muridisme tàmbale ñenn ñu jàpp ne sëñ bi daf ko sos waaye bu ñu delloo si amul fa dañu gis ne sëñ bi sosul waaye dafa ñëw ngir beesal sëñ Fallu nee na ci loolu la sëñ bi nekk ab diir bu yàgg jamono ji nekk ak saa su nekk mu koy beesal mu koy yeesal nee na nag bañ demee ba suñu borom tànnal ko kërug dëgg delloo ko ci boppam mu dellu ci kërug fay nee na ñun ñii di ay njabootam te mag ci ay doomam ci sunu takku ak sunu laxasaayu ci lañ fas yéenee yëkkati tabax bi nga xam ne nii moom la sëñ bi tabaxoon mottali jubluwaay yi nga xam ne nii moom la sëñ bi jublu woon loolu defe naa boo demee céer ci al euh, kitaabu al manhajul qawim fi siirati Cheikh al Xadim bu alhaji Mamadou Mamoud Niang da nga ko fa ca fekk ci partie bi mu jagleel Cheikh Mamadou Fadil ci kon ci dégginoow ci lañuy ñuy gisee ne yoonu murit mooy lislaam ju wér ju sell joo xam ne ni dara koo ko jibluwaayu sëñ bi itam weesu wutoon yeesal diini bil mustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xara wa inni ahmadu kon sëñ bi moom ab yeesalkat la woon waaye nag sësul lu bees ba sëñ bi tàmbalee yeesal boobu nag ba nim ñu wane gannaaw muy diiru 1883 ba 1927 di at yu xaw a takk xaw a limu yoon bi wala boog njàngaleem sëñ bi topp maanaam tegu na ci am na ci ay étape yu baree bari yoo xam ne nii jaar na ci kon bu ñu naan sëñ bi dafa sos yoonu murit dañ koy wax nu ànd ak nit ñi rek waaye nañ jàpp ne sëñ bi sosul dafa yeesal étape yooyu na nga xam ne ci la sëñ bi jaar ci dundam bu nekk am na luñ koy ràññee bu nekk danañ ci jaar tënk ci ëslëf tàmbalee ko ci étape Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor mooy état bu jaayante mooy bi nit ñi ku nekk ñëw teg sa loxo ci sëñ bi jël pacte sa digg ak moom ci fas yéene dox ci kem yoon wi nga xam ne nii moom la sëñ bi rëdd moom la sëñ bi di waxal boppam ne dama fa wax nii ne leen képp koo xam da ngaa ñëwoon ànd ak man ngir jàng dong xam-xam kese nee na mën ngaa laxas seet fu gën a dëppoog yow képp koo xam da bëgg nag yoon yu ma bëgg a jaar nga bëgg caa jaar ànd ak man nee na nag boobaa da ngay nangoo jaar ci yoon wi may jaar di doxe ni may doxe nee na ba mu ko waxee ñu bari dem ñu tuuti des fa ñu tuuti maanaam groupe bu ndaw boobu desoon ànd ak sëñ bi nag ci seen détermination seenu dogu ci la doxub maanaam njàngalem sëñ bi tàmbalee soppi lu bare baree bari nag ci déggéen yi ñu amoon ak taxawaay yi ñu amoon ca jamono yooyu lu baree bari nag commencé di soppi ko kon étape Mbàkke Kajoor étape bu am solo la ci njàngalem sëñ bi ndax ci la jaayante bi tàmbale sëñ bi jógee fa ñëw Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol étape la bu am solo ci njàngalem sëñ bi ndax mooy étape bi nga xam ne nii ci la sëñ bi tegee doctrine yoonu murit ndax fa la taalife téeréb masaalikul jinaan ci atum 1885 te masaalikul jinaan mooy doctrine yoonu murit maanaam màndarga yi war a nekk ci murit wala boog idéologie bi murit war a topp bu fekkee baat bi wér na foofu maanaam ci masaalikul jinaan ci la ko sëñ bi tënk man ngaa wax ne ci la sëñ bi théorisé yoonu murit mooy kitaab masaalikul jinaan moo tax képp ku bëgg a xam njàngaleem sëñ bi ak lim yoon yu mu rëdd ci tasawuf mënta ñàkk nga dellu ci téereb masaalikul jinaan kon masaalikul jinaan sëñ bi mi ngi taalife Mbàkke kon nag ci la tegee nag rëdd yoon wi nga xam ne ni nag képp ku sóobu ci nga war a jaar Mbàkke bool yàggu fa lool ba mu fa dellu siwaatee daal fay jógee dem Daaru Salaam Daaru Salaam étape bu gàtt la ndax sëñ bi yàggu ko ñaari at wala yu mel noonu la fa war a def waaye am na lu fa feeñ lu am solo ci daaru salaam fi la ab cheikh njëkk a feeñe ci yoonu murit muy maam Cheikh Anta ci niñ ko histoire bi nettalee moom la sëñ bi njëkk a tofal mbooloo akub dëkk maanaam buñ doon wax seexal moom la njëkk sëñ bi njëkk a seexal phénomène u seex nag ci njàngalem sëñ bi maanaam phénomène bu am solo la ci biir njàngaleem sëñ bi ndax lu baree bari ci luñ mën a nettali ci lu baax loo xam ne ni ñëpp mën nañ ci teg seen bët cheikh si ñoo ko réalisé ci yoonu murit waaye nag lu baree bari tam nag loo xam ne nii lu nu mën a xoolaat la moomat yenn cheikh yi ñoo ko dugal ci biir njàngale am na ci cheikh yoo xam ne nii fa sëñ bi tegoon tànkam fa lañ teg seen tànk wala bokk fa lañ bëgg a teg seen tànk di ko jéem a dund waaye am na ñoo xam dañoo ñëw nag jël mbubbum seex sol ko te fekk na am seen objectif personnel yu ñu bëgg a réaliser ak seen jubluwaayu bopp ba noppi nag làmboo mbubbum seex loolu defe naa ne yaatu na ci jamono ji ñu toll nii lool lool lool kon seex lu am solo la ci yoonu murit lu baree bari lu taxaw ci yoon yi seex see ko taxawal waaye nag lu baree bari lu ci dugg itam nag yenn seex yi ñoo ko ci dugal kon daaru étape bu am solo la ci yoonu murid buñ fa jegee ñëw Touba ci 1888 wala 86 wala yu mel noonu 88 ci la sëñ bi sos dëkk bi dafay mel ni nag ci bim noppee ci tabax gistu maanaam cons maanaam li war a tënk njàngale mi ci mooy Masaalikul Jinaan jaar Daaru Salaam bi mu ñëwee Touba nag ci la commencé di tabax société boo xam ne nii. société murit lan koy tuddee maanaam infrastructure bi nga xam ne nii ci la yoonu murit war a taxaw fii ci Touba nag fii la ko sëñ bi commencé di ko taxaw def fi ñaari xasida yu am solo genn gi di Matlabul Fawzayni muy téere boo xam ne nii taalibe yu baree bari dañoo jàpp ne ay ñaan rek la mën naa wér nag mën naa nekk ñaan ñenn jàpp ne lu am ba noppi la loolu moom réalité moo ko nanguwul ndax kuy ñaan ku nekk la ngay ñaan day fekk muy nga la nga bëgg mu am te amagul lool ngay ñaan moo tax déggin wi ñu war a am ci Matlabul Fawzayni mooy xam ne sëñ bi ni bëgg dëkku Tuubaa mel ko moom la tënk ci biir Matlabul Fawzayni mooy dëkk boo xam ne nii li war a am lépp dana fa am ngir ñu mën faa tabax doomu aadama boo xam ne nii royteef lay doon moo tax ci biir man la bul faw sey ni ci nga gis sëñ bi di waxee wàllu njàng mi ci la ko waxee wàllu njàng mi ci dëkk bi wàllu barabu jaamukaay yàlla yi ndox mi war a am ci dëkk bi barab yi yëngutu yi nga xam ci lañuy ñuy wuteem koom mu ñu mën a dunde barab problème mu sécurité yëpp da ngay gis mu koy wax ci biir la Matlabul Fawzayni te loolu mënta ñàkk ci dëkk ngir ñu mën faa tabax doomu aadama gannaaw bu Matlabul Fawzayni jàllee ci la sëñ bi def xasiidatu fii ci Touba ci atum weeru koor ci atum 1311 ci gàddaay gi dëppoog weeru mars 1894 ci la sëñ bi taalif xasidatu xuqal bukaa fii ci daaru fii ci Touba buñ delloo ci minanul baaxil xadim sëñ Basiir daf fiy nett lu am solo dafay nett ne sëñ bi sëñ am satu jaxate nett na ko ne sëñ bi nee na ko gis gi ma njëkk a gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci weeru koor woowu ci la ko njëkk a gis waaye nee na boobu daf koo gis ci lu mel ni ab rido bu yaraax dox digganteem ak moom foofu nag ci la bëggum gën a bëgg yonent bi foofu la gën a yokkoo ni ko suñu basiiru di wax waaye li ñu gën a yitteel foofu ci xasidu xol te suñ basiir di ko nett li mooy ne ci xasidu xol bukaa ci la sëñ bi di leerale yan melokaan moo waree ne ci nit ngir nekk ngir nit ki nekk ku ñuy war a mën a roy ci xasida gi nag sëñ Basiir dafa wax ne moom analyse am mu ko may nee na donte sëñ bi waxu ko ko waaye ci analyse am te loolu lu am solo ci wàllu xam-xam ni mu analyse nee na moom sëñ bi ñi muy nett la ci xasidatu qalbuka nee na mooy mag ñi mu doon yar di leen defar fii ci Touba nee na seeni melokaan moom la sëñ bi leeral ci biir xasidatu qalbuka kon li sëñ bi doon waajal ca mbakke Bool kon ci Touba la tabaxe nit koo xam ne nii mel na ni mu bëgg mu mel ko moo tax ci Touba ñu njëkk a am ngërëm ñu wàcce leen ci yoonu murit ci Touba la leen sëñ bi njëkk a wàccee moo tax bu ñu bëggoon a tënk état bu dañ naan bu fekkante ne yoonu murit ak togg la dañ naan ca Mbàkke Kajoor ci lañu dugge ci lañ ko waajale waaye nag ci mbàkke bawol fa lañ ko togge waaye nag tuubaa fi lañ ko yàkke ndax tuubaa gi njëkk am ngërëm ci sëñ bi ci tuubaa lañ ko amee tuubaa xam nañu sëñ bi yàggu fi tuuti daal fi jóge dem étape bu mbàkke ba mbàkke baari ak tukkib géej gi muy étape bu am solo ci yoonu murid ndax étape bu test la woon ci taalibe yi ndax taalibe yi gëm gi ñuy woote sëñ bi ndax dëgg la ci ñoom état tukkib géej gi test la woon ci taalibe bi xëy na tubaab bi dañoo yaakaaroon ne suñ jëlee siñ bi yóbbu ko bu ko taalibe gisatul danañ découragé ñenn ñi dem feneen lena nekk ci leneen waaye ndekete yoo loola day gën a yokk te saaroo njàngaleem sëñ ñu gis ne sëñ bi mu demee ci géej gi taalibe yi seen pas-pas dafa gën a yokk seen gëm-gëm ci sëñ bi dafa gën a yokk waaye itam li tubaab bi doon xalaat safaan bi moo for am ndax ba mu tasee Mbàkke Baari ne kenn du dëkk Tuubaa mag ñi dañoo daal di tasaaroo biir Sénégal ku nekk am foo dem fa nga dem nag mbooloo daal la fay toppe par njàngaleem sëñ bi gën a yaatu kon état bu géej gi ci la yoonu murit gën a yàqali ko gën a yaatu te moo ne booba sëñ baa ngi ci tukki bi ci géej gi kon pas-pasu murit yi feeñ na foofu ne dafa gën a dëgër am na beneen étape bu ci géej gi mu étape bu gànnaar étape bu gànnaar tam lu am solo la ci yoonu murit ndax ci lañ commencé internationaliser yoonu murit maanaam yoonu murit war a génn Sénégal nag war a dem nekk niveau international ndax foofa tam la sëñ bi saxala moom mii jëmm la joo xam ne nii ki war a nekk rénovateur ci xarnu boobu siècle boobu moom mi mat na ko sëkk moo war a nekk mu jaddidul xarnu ndax wane na ko ci matam ak ci pas-pasam ak dëgërëm ci ay taxawaayam ci kanam naar yi ndax jàppoon nañu nit ku ñuul bu demee cib naar complexe dana ko may du ñemee feeñal yenn bi waaye sëñ bi dem na foofu ba naaru gànnaar yu baree bari wëlbatiku jox ko seen bopp jaayanteeg moom jaar ci yoon wi nga xam ne nii ci la rëddoon muy étape bu am solo moom tam ci yoonu sëñ bi njàngaleem sëñ bi ndax mooy étape bi nga xam ne nii ci la yoonu murit génne Sénégal nag dem ci yeneen dëkk ñu daal di ñëw nag ci étape bu Jurbel xëy na sëñ bi jóg ne gànnaar jaar na Thiel ak yu mel noonu waaye étape Diourbel bokk na ci étape yi gën a am solo ci yoonu murit ndax moo ci gën a gudd nag sëñ bi li mu def Diourbel def ko ci beneen dëkk fukki ak juróom yi mu def Diourbel amul beneen dëkk boo xam ne ni def na fa lu toll noonu kon étape Diourbel boo gën a gudd ci étape yi waaye nag moo ci gën a dangereux nag moo ci gën a bari ay yëf yëfaan yi ne ci biir dañuy nett ci histoire ne tubaab yi bi ñuy indi njaareem bi ñu indi sëñ bi njaareem bokkoon na seen xalaat mooy njaareem dëkkub taax la bu ñu fa yóbboo sëñ bi taalibe yi bu ñu jaxasoon nitu taax yi dana leen mën a soppi ba dugal ci ñoom yeneen jikko loolu nag tubaab bi xëy na réussiru ko ah ci cent pour cent waaye nag état bu Jurbel état bu garaaw la ci yoonu murit ndax nag bari na li ñuy jàmbat ci yoonu murit jamono ji ñu toll nii ci état bu njaareem fa la commencé am yu baree bari yu wax waxtaane nii di ko gis muy yoo xam da day mel ne dafa wuuteeg li sëñ bi jàngale ci état bu njaareem ci la feeñ moo tax ñun ci gëstu dañ koy tuddee maanaam société xarnu bi maanaam mbooloom xarnu bi mooy mbooloom njaareem suñ jëlee benn bayit rek ci sëñ musaaka ci xarnu bi daf ñuy wax dëgg-dëgg état bu njaareem mooy lan sëñ musaaka day wax ne boo nu joxoon lanu yoroon dootu nu def na nu defoon xanaa yëgoo ne yaru nanu sarax nu naatal xarnu bi baatu yaru nan nag amal nañu solo lool ci waxtaan wi foofu kon étape bu njaareem étape la boo xam ne nii bari na lu ci xaw ci biir yuñ mën a gis yoo xam ne nii moo indi yenn yi ñuy jàmbat ci yoonu murid xëy na ku gën a gëstu foofu dañ ci gën a mën a am lu leer ci guddi ñaar fukki fan nag ci weeru tamxarit ci atum mille quatre cent quarante cent quarante six ci la sëñ bi dellu ci boroom war a nag feeñal beneen doxin beneen beneen départ bu bees ci yoonu murid di étape bi nga xam ni nag ñi ko njëkk a wuutu ci lañ jaar loolu danañ ci jaar tënk ci tuuti tàmbale ko Cheikh Mamadou Moustapha moom moo njëkk a wuutu sëñ bi am nag ay défi yu mag yoo xam taxawoon na ci kanamam diggante colonialiste boo xam ne ni dafa taxaw temm ci sëñ bi buñ gisatu gisatuñ sëñ bi kon yow nu murit na fi yem di ca def luñ man nag ak nit ñoo xam ne nii ay jullit lañ waaye seen fiiraange tax na buñ sañoon xëy na njàngaleem sëñ bi dana yem foofu ñu commencé nag di def ay rumeur di siiwoon ay mbir wane ne murit dañoo wuute seen biir kan moo war a wuutu sëñ bi murit yi wute nañ ba tubaab bi am ci yoon ak la ca xew gannaaw ba lépp ak lettre ba ci sëñ Mbàkke Buso bind ak lam ca leeral tubaab bi na ko mën mënta am ci yoonu murit ndax ñi fi sëñ bi bàyyi leeral ko ci lu baree bari ku bëgg ku ci bëgg am lu gën a leer mën ngaa dellu ci lettre boobu moo tax si Amadou Moustapha jànkoonte yu baree bari njëkk ak xilaafaam di am ak dal ba mën a sóobu ci liggéey bi mu amee dal tuuti nag ci la daal di commencé sóobu nag ci ay réalisation jéem a wóyal ndénkaan yi nga xam ne ni moom la fi sëñ bi bàyyi woon ndax sëñ bi wax nañu bi mu fiy jóge ñetti ndénkaan rek la fi bàyyi mooy aj màkka mooy jumaa ji mooy tabax ab jàngu boo xam ne ni fu waay jóge boo ñëwee man fa yokk sa xam-xam ci la si amadou Moussa nag daal di commencé di wóyal loolu ci atum 1928 mu daal di yabal ab délégation waajal leen ñu dem jooxe ci seen juróomeelu ponk ci lislaam waaye itam mottaliwaale yéene la Touba radiyallahu anhu ji mu amoon ci dem Màkka daal di soobu itam ci 1930 ba 1932 daal di soobu nag ci commencé tabax jumaa ji daal di teg première pierre bi waaye nag am charte bu diis buñ ko tegoon te mooy xëcc raay bi jële ko njaareem andi ko Touba mu nekkoon charte boo xam ne nii mën naa am dañoo jàppoon du mën a nekk ngir ñu mën koo gàllankoore liggéey bi mu daal ciy def réalisation bu am solo. mooy nit ki njëkk a gis ci histoire mu xëccub raay ci juróom lu mat juróom fukki kilomètre indi ko ci dëkk defe naa ne loolu gisaatuñ keneen ku ko def ci histoire ci côté sociale bi tam mu def ci ay jéego yu am solo ci jéem a def murit yi ñu nekk benn jéem a bennale kàddu yi moo tax nañ daana wax ne li fekk nekku leen benn ci lu leen bennale rek ci laay nekk ci la nag daal di sose diiwaanul muridiin diwaanu muridin bu ñu wax daayira bi njëkk sos ci yoonu murid si Amadou Moustapha moo ko taxawaloon xeeti kër yu di murid yëpp nag kër yu mag yëpp kër gu ci nekk amoon nga fa ku la fa représenté mu séddale tam mission yi ci biir kuréel gi ku nekk mu seet lay sa compétence mu jox la ko ñi ñoo yor njàng mi ñi ñoo yor njàngum alxuraan ñi ñoo yor xasida yi ñi ñoo yor ba ci protocole bi sax daf ko wutaloon ñoo xam ne nii ñoom ñoo ko yor ci loolu si amoon soit liggéey ci liggéey bu am solo ku nekk xam ne nag ci mu jëm ci la deuxième guerre mondiale daal di commencé lépp nag daal di salfaañoo yëf yi jaxasoo projet yu bëree bari ci yoonu murit daal di taxaw comme ni projet yu bëree bari taxawee ci àdduna bi moo tax ci atum 1945 Cheikh Modou Moustapha daal di dellu ci boromam Sëñ Fallu jëw toog jataayu Serigne Touba Sëñ Fallu ñun dañuy wax ne mooy. personnalité bi nga xam ne ni moom la jamono laajoon ci ay bi muy ñëw mooy nit ki ñu soxla woon ci jamono jooju moom buñ delloo ci almanhajul xawim fii Cheikh Seex Xadim sëñ bi daf ñuy wax ne sëñ Fàllu moo doonoon koo xam ne nii ak taalibe gu dëgg moo ne woon ci moom amoon yërmande ci nit ñi waaye itam nekkoon leader boo xam ne nii maanaam ak njiitam daf koo teg ci yoon wu jub tegu ci yoon nekk ku tolérant nekk ku amul nooy yaatu dënn mën a kaf waaye itam am xel mu jub mu ne nag ci melokaan yooyu nag nekk Sëñ Fallu moo tax ñëpp daal di topp ci gannaawam nangul ko liggéey bi daal di wéy waaye ñun li ñu gën a yitteel siñ Fallu mooy nag Cheikh Mamadou Moustapha bi mu fiy jógee deuxième guerre mondiale bi jàppoon na nit ñi ba ku nekk jàpp nga ne maanaam bekkoor beeg xiif beeg maanaam wéradi ràmm goog rafle sonal nit ñi Sëñ Fallu moo yeesalaat espoir ci nit ñi moo dundalaat yaakaar ci nit ñi ne leen nag ràmm jeex na fi maanaam ñàkk jeex na fi xiif jeex na fi nit ñi seen yaakaar dundaat ngir ñu mën a beesaat mën a dem loolu dañ koo soxla woon ci jamono jooju Sëñ Fallu tam liggéey na ci luy am stabilité ci Sénégal Sénégal bu dalee tey duggul ci guerre guerre civile gannaaw indépendance nan ko sante Cheikh Mamadou Faty ci taxawaay bu mu am Cheikh Mamadou Faty moo àggale jumaa ji muy réalisation bu mag a mag julli ko ci 1963 daal di taxawal marché Ocass marché Ocass bi bi mu koy taxawal lu taxoon mooy taalibe yi am fu ñuy mën a daane seen doole di fa yaxantu ngir man faa fàggu lu lew moom it créé lu bëree bari yu yoonu murit waaye 1968 mu daal del ci boromam Cheikh Abdoul Ahad daal di ñëw moom it réalisation bi ñu ëppal solo ci moom mooy delloo identité murit murit lañ ko daan xàmmee bu njëkk ci yar baag melokaan yéeg tegu ci yoon Cheikh suñ suñ fàllu eh wala boog Cheikh Abdoul liggéey ci lu baree bari ndax ku nekk xam nañ ci jamonoom ci la dëkk bi yaatoo lool ñu baree bari ñëw sañse fi ñu baree bari gàddaaye fañ newoon àndaali ay jikko ak i melokaan fas ko yéene te saare ci dëkk bi ci la daal di jële décision historique boo xam ne nii ba léegi dañ koy waxtaane mooy décision bi mu jëloon ne lépp loo xam ne nii dëppoowut ak lislaam mu aaye ko ci dëkk bi ci xeet yi nga xam ne ni ku dem ci lettre ba da fa gën a gis si ñeblaat rek moo tax ñu am génération bu ma sëkk boo xam ne nii mësta gis kuy jëfandikoo am poon ci wetu jumaay Tuubaa ji am na temps yu boobu danga daan gis nit ku taxaw ci buntu jumaa ji yor cigarette di tux surtout jamonoy màggal da ko daan gis. loola liggéey suñ fa suñ abdulaat moo tax xale yëpp mësuñoo gis ku taxaw ci wetu jumaa ji yorum pon di ko naan loolu liggéey bu am solo waxuma laa nag yeneen yi nga xam ne ni moom kenn du ko waxaale waaye réalisation bu am solo bi nga xam ne siblaat def na ko tam mooy kër gi ñu jàkkaar loolu muy kër sëriñ Touba defe naa ne ci xalaatam bu gudd jamono ñi leen dooroo xam ne nag kër gi mën doon a ñàkk nekkati loolu yépp ay liggéey la yoo xam ne ni def na ko ci atum 1989 mu dal ci borom Cheikh Abdou Khadir moom daanaka xilaafaam dañ koy dugal ci biir xilaaf ak sëñ Abdou Lahad ñu gis nag ne sëriñ Saliou moom li ñuy wax ci moom li ñuy wax orthodoxe si murit moom sëriñ Saliou boo ko delloo si maanaam dëgg dëgg delloo yoonu murit ca cosaan te mooy jàngale ak yar yoonu murit ca cosaan wéetu jàngal nit ñi yar leen moo tax sëñ Saaliw bi mu ñëwee delloo si loolu ci kem ni ko lislaam bëgg ci la defoon déclaration bu siiw ba ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ bi daan def ci bangi ci la taalibe yëpp nag commencé di ko jox ak njaboot seeni njaboot ci moom lañ gise kenn nit ku yor lu mat ëpp juróomi junni jege fukki junni ci ay taalibe di leen dundal taban am na taalibe yu ci liggéey seen loxo waaye yor leen di leen dundal di leen jàngal di leen defar te laaju ci kenn benn dërëm ci moom it lañ gisee li ñuy wax compte Serigne Touba ubbi compte ci banque boo xam ne nii lépp luy addiyee jëm ci liggéey sëñ bi ñu di ko fa dajale mu nekk ay milliards ñu ciy financé ay projet ci yoonu murit loolu defe naa ne ci Serigne Saliou lañ ko gisee sëñ Mourtada ak sëñ Sohibou bu nag ñoom jotuñoo nekk xalifa waaye ku nekk gis na seen liggéey ci jàng ak jàngale biñ ci def ku nekk gis na ko moom it defe naa ne def nañ lu am solo ci cré defar nit ñi waaye jàngal leen waaye yar leen gannaaw bi fi Sëñ Saalu jógee nag ci la état bu sët yi commencé dugg mooy étape boo xam ne nii itam am na luñ koy xàmmee ndax ñoom liñ tombel mooy xam-xam dafa tës dafa yaatu dañoo jékki-jékki xam-xam mel ne lu explosif ñëpp daal di mën a xam technologie avancée lool ñu gisit li ñuy wax sañ-sañu wax sa xalaat gën a tasaaroo ci la beneen défi nag bu bees feeñ ci kanam doxin yoonu murit mooy li ñu ci attaque di ko jëmale ci yoonu murit loolu beneen waxtaan mu laaj na kon ñu créer beneen stratégie bu bees ngir mën a jàmmarloog défi yu bees yooyu te mooy fexe ba jàngal nit ñi former leen defe naa ne loolu moo indi complexe Cheikh Ahmadul Khadim nga xam ne seex la ci université Cheikh Ahmadou Bamba muy ñaari université yoo xam ne ni ay privé ci yoonu murit ñoo ko taxawal loolu itam di lu néew ci sunum réew loolu itam réalisation yu am solo la yoo xam ne ni danañ ko gis ba kon nga gis ne yoonu murit dox na ay jéego yu am solo ca sëñ bi ba ci jamono ji ñu toll nii bu ñëwee nag ci nit ñi toll ñun murit gi nag ci jamono ji nu ko ñu koy xàllee ni koy gisee jàpp nañu murit moom tasaaroo na tasaaroo bu gaaw ci jamono yu mujj yi ndaw yu baree bari itam ñëw soobu ci yoonu murit loolu nag dafay tegtal kon yoonu murit am na avenir ndax lépp loo gis ay xale jàppal ne lu am avenir waaye nag na fekk ñu xam naka la ñuy mën a jëfandikoo kàttanu ndaw ñi ba mën leen a investir ci ñoom bañ mën a joxe liñ bëgg kon yoon wi yàqu yokk na yokk gu gaaw suñu situation matériel tam soppiku na maanaam am-am bi yokk na yokk bu gaaw a gaaw tey poids économique Sénégal mi ngi ci loxoy taalibe yi murid kon nag dox bu gaaw ci yokk waaye tam am-am bu gaaw mën naa indi ay soppaxndiku yu baree bari su fekkente ne amul lu ñuy wax adaptation maanaam àdduna buy dox dafa war système boo xam ne nii dañuy adapté ci soppiku yu bees yi su fekkente ne nag loolu amul nag dafa am lu muy créé li muy créé mooy al huwa ak thaqaafiya mooy fossé culturel fossé culturel mooy séparation diggante différence bi am diggante nit ñi ni ñuy doxee ci wàllu matière ak ni ñuy doxee ci wàllu xel xam nga tey man ngaa gëj a gis nit benn at ñaari mu xëy nekk millionnaire kon wàllam ci wàllu matière moom soppiku na waaye nag xel moom ak soppi ko mënta gaawe noonu moo tax bu sa situation àdduna soppi te sam xel soppiku nag dafay laaj liggéey bu mag bu ko amul rek am na yàqu yàq yu baree bari yoo xam ne loolu moo koy jur moo tax xëy na nag ñàkk bu ñàkk am système buy adapté ci citation yu bees yi lim jur mooy ay nattukaay ay critères yoo xam ci lañ daan natte dafa mel ni dañ koo wëlbati ci biir dégginu murit bokk na ci dégginu murit ci boppam rek dafa mel ne maanaam ako sëñ bi joxoon day mel ni dañ koo wëlbati bëgg koo jox meneen maanaam yeneen principe yi ne ci biir yeneen concept yi ne ci biir njàngale bi tam yi ci bare ba dañuy léegi baatu sëriñ cheikh waxoon naa léegi ne bari na ay sabax ndi ko ci dugg yoo xam ne ni nit ñee ko ci dugal waaye wute naag cheikh bi sëñ bi doon wax baatu murid saadiq ba tey bari na lu ñu ci dugal ay nattukaay yu bees yu ñu ci dugal yoo xam ne wuute naag yi sëñ bi doon natte moo tax kon bari nañu dugg ci yoonu murid te mën naa am ñoom tur bi dong lañ dégg dugg ci waaye nag xamuñu ci leneen ñooñu nag commencé di ko firi seen prix bopp ak seen dégginu bopp moo indi nag yu baree bari yoo xam ne nii manis na koo gis ci biir njàngale da ngay gis léegi koo xam ne ni daan murit gi moom ni ma ko déggee moom jàpp na ne daal sëñ bi dafa ñëwoon ngir goreel xeetu nit ku ñuul xëy na bokk na ci liggéey sëñ waaye ko ne xam ne liggéey sëñ weesu na couleur du ko ñuul du ko weex du ko xonq ñenn ñi jàpp ne sëñ bi daf doon xeex tubaab bi te du jëfandikoo violence non violence ñenn am déggin woowu di tëkkali sëñ bi ak ñeneen nit xeetu Mahatma Gandhi wala yu mel noonu sëñ bi weesu na foofu weesu na mbiram du woon xeex tubaab bi ñenn ñi ba jàpp ne xeetu ni ñuy def suñu bopp yi sax maanaam am ñun ñuy tuddee ñun ñuy niróoleel ci xeetu rastamaan yi ba ñenn ñi jàpp ne noir américain benn benn jàpp ne ñun danoo bokk ak ñoom dara ba tax ñu ñuy wut ci ñun ak mbokk te fekk na loola du sunu yitte ñun kon yooyu bari na ci yoo xam ne ni ay déggin yu bees yi ñu def ci yoonu murid bi ci mujj nag mooy baat bu siiw lool mooy baatu bàmba ji bàmba ji léegi ñu bari dañ koy jëfandikoo te yoonu murid mësta tudd bàmba ji sëñ Tuubaa mës ku ko tuddee xëy na mag ñi dem bu jaan jëfandikoo tam kaf lay doon seen biir waaye sëñ bi yoonu murid askaneelu ko ci turam askane ko ci santam askane lu ko ci dëkk muy dulla ni ñu ko waxee woon léegi du yoon wu bees wu ñuy sos moo tax delluwaat ci njàngalem sëñ bi war na ci taalibe yi sëñ bi tubaab yi nañ koo laaj lan mooy yoonu murit mu leen koy leeral mu ne la yoonu murit kat awal boog njàngale murit fondement bi mooy imaan ngëm yàlla gu tegu ci taw tawxiid waaye lislaam ju tegu ci fiq waaye itam ihsaan mooy rafetal gu tegu ci ngirum tasawuf noonu la ko jàngale loolu nag xëy na kon dafay tegtale ne buñ doon xool murit yi jamono ji ci toll nii ñu bari ci ñoom déggin wi ñu am ci yoonu murit wuute naag fondation bi ñu tegoon njàngale ñu mu ko jàngale moo tax képp ku bëgg a xam yoon wi dëgg dëgg bul xool taalibe yi ñu ñuy dunde waaye dellul ci njàngalem sëñ bi ci boppam ndax boo xoolee taalibe yi mu benn benn taalibe mu ni ñuy dunde mën naa am sax nga sikki sàkk ci njàngalem sëñ mi ngi mel ne lislaam ak jullit yi fi mu ne jullit niñ mel ni ci àdduna bi jamono ji ñu mel nii boo ci nattee lislaam mën ngaa dem ba weddi lislaam kon boo bëggee xam lislaam dëgg-dëgg da ngay dellu ci alquran ak sunna ak yu mel noonu naka noonu tam njàngaleem sëñ bi boo ko bëggee xam dëgg-dëgg bu ko natt ci melokaan murid yi jamono juñ toll nii waaye natt ko ci principe ak jàngale yi nga xam ne nii sëñ bi doon na ko jàngale. loolu nag la muy jur kon mooy ne dafay laaj léeg-léeg kon ñuy beesal maanaam njàngale mi ñuy beesal dégg ni di ko leeralaat nit ñi. bu ko defee ne kon téeméeri at yu nekk waxoon nañ ko léegi. nattukaay la ci jullit yi ngir ne téeméeraat yu nekk ab beesalkat dana ñëw loolu mooy tax diine mën a walaabal ci jamono ju nekk ak barab bu nekk yoonu murit du génn foofu sëñ bi mësta ànd ci jumuut jumuut mooy nga taxaw benn barab dara du soppi ko sëñ bi mësta ànd ci li ñuy tuddee taxaw xux taxaw xux mooy ngay dox di wër sa bopp nga nekk cercle cercle bu vide cercle vicieux boo xam ne ni dangay dox di wër sa bopp sëñ bi mas na mel noonu moo tax bi mu ñëwee moom mu laxasaayu ngir beesal li mu fekkoon kon sëñ bi ku gëm soppi la ku gëm nitam yeesal dafa war am moo tax yeesal nag ci lislaam yëngu-yëngu boo xam ne nii day wëy day continue ni xam-xam yi yokkoo ni technologie bi yokkoo ni xew-xew yi di soppi ko noonu tam na la beesal di war di soppi ko beesal gi ñuy waxtaane fii nag day boole originalité ak modernité dafay boole cosaan ak lu ñuy dund ci jamono ji boole ko nag ci benn mbir moo xam ne ni dafay liggéeyal njariñul murit yi waaye tam dafay liggéeyal njariñul jullit yi da di indil dindil xat-xat yu bare bari yoo xam ne itam dañ leen ciy dugal ci àdduna boo xam ne nii liñ koy xàmmee mooy keneen ki taxaw tom ci jéem a effacer suñuy valeur waaye itam jéem a effacer suñuy pas-pas jéem a effacer suñu identité dugal ko ci baatu li ñuy wax mondialisation mondialisation nag ci ñun murit yi dafa am lu mu laaj ci ñun mooy ñu xoolaat suñu stratégie bi ñuy jàmmarloom ñu seqal àdduna bi muy stratégie boo xam ne ko war a tabax ci politique gu jox joxe ak jël maanaam nañuy nangoo joxe waaye itam nañuy nangoo jël ci keneen nanu am flexibilité mooy mën a amul nooy goo xam danañu mën a may bu situation laajee ñu soppiku ñu mën a soppiku danañu may ñu am tolérance lépp nag ñu dugal ko ci biir l'islam ju transversal l'islam joo xam ne nii dafay làmb lépp lu doomu aadama di soxla woo lépp luy négativité ñu génne ko ci islam joo xam ne ni day xam am noonam dëgg-dëgg nga xam ne tey sunum noon ñun jamono ji nekkatul ab tubaab nekkatul ab naar nekkatul ku weex wala ku ñuul wala ku xonq ñun sunum noon ñetti mbir la mooy ñàkk ak réer ak wéradi ñàkk ak réer ak wéradi mooy noon bi taxaw sunu kanam fan yi ñu war a jàmmarloog moom war a xeex ak moom kon ci biir murit gi ñun gis nañ ne war nañoo gën a amaat déggin wu yees te xóot ci situation bi àddina bi toll jamono ji ñu toll nii ndax fi mu nekk nii xam-xam yaatu na technologie avancé lool lool nu war a xool nag naka lan war a mën a jariñoo ci avancement xam-xam ak avancement technologie bi ngir mën cee liggéeyal yoonu murit te jéem a nag bàyyi toog di wër suñu bopp te mooy nga toog di wër sa bopp mooy jàpp na yow amatoo soxla ci keneen fi mu nekk nii taali bi ba wax mu ne la sëñ bi am na lépp te moom mi koy wax boo ko xoolaan nga mbaxana ba ci dàll yi lam sol lépp amul lenn loo xam ne fii lañ ko defare ba noppi nga ne sëñ bi am ñu soxla wuñ genn kon yaa ngi wax loo xam ne sa jëm sa bopp moom moo la ko dul wéral kon nan jéem a xoolaat nu mën a jariñoo ci àdduna bi ci fi mu toll te jéem koo dëppaleeg suñuy pas-pas ak suñuy ngëm-ngëm ngir man cee jariñ sunu bopp te jéem a nangu di joxe tey jël ndax joxe ak jël mooy secret bi tax mbooloo di avancé fi mu nekk nii mbooloo moo xam dañu ñoom duñ jël ci kenn mooma mbooloo du dox su fekkente ne yow da doo jël ci kenn nit ñi dañuy ñëw jël li nga baax la dem mboole kook lañ baax la ñoom daal di dox dox bu gaaw yow avancé bàyyi la gannaaw fekk yow raw nañ la ci lu bare ba moo tax nan xool li baax ci ñeneen ñi ñu jël ko boole koog suñu mbiri bopp ngir mën a dox kem niñ bëgg ñu am nag ay étape ñu ma am nag ay domaines yu bare bari yoo xam ne ni gis nañ ne doon nañ ci liggéey gaa waaye nag war nañ cee gën a liggéey maanaam jàpp nañu yëngutu bi ñu ciy def daal dese naa doy bi ci jiitu mooy enseignement ak éducation jàng ak jàng moom def nañ ci lu rëy rëy waaye li ñu ci dese moo ëpp fuuf liñ ci defagul ndax jàng ak jàngale mooy bëgg-bëgg boo xam ne nii moom dafa wuuteeg yeneen bëgg-bëgg fi mu ne tey mën ngaa tabax juma toog lu ma ñaar fukki at wala fanweeri at te doo tabaxaat juma te ñey julli juma ji du xat waaye jàng ak jàngale mooy at mu jot. day laaj ngay beesal di yokk ndax nit ñi ni ñuy yokkoo noonu la bëgg-bëgg njàng mi yokkoo noonu tam la yëf yi yokkoo kon jàngal jàngale moom mooy loo xam ne nii sa loxo di ci jóg foo toll naka noonu tam man nit ñi ni ñuy soppi ko xam-xam bi nga jàngal tam noonu la war di soppi ko moo tax méthode yi ñuy jàngalee ak téere yi ñuy jànge jamono ñu nekk ak saa su nekk dañ koo war di beesal di ko dëppaleeg bëgg-bëgg yi ñu tolloon sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor ku nekk dañuy naan dafa tas daar yi déewul tasul daar yi waaye dafa soppi nañ doon jànge waaye yemul ci soppi nañ doon jànge waaye téere yi ñu doon jànge daf koo soppi ndax gis na ne téere yi ñu doon jànge ñu bu njëkk dañ ko doon taalife bitib réew te foofa téere fu ñu ko taalife moom daf ciy feeñ moo tax mu taalif yeneen téere yu gën a dëppoog ñun gën a gàtt ñu ciy sukkandiku di ci jàng loolu nag war nañ cee jël leçon moo tax wàllu jàng ak jàngale am na lu baree bari loo xam ne nii war nañu ci ñu war ko cee def moo xam ci quantité bi la moo xam ci qualité bi la war nañ cee gën a liggéey ñu jéem a xool ci njàng ak njàngale mi kon li ci sax te du sopp wër te ko ñu bàyyi ko noonu waaye am na ci loo xam ne nii dafa war a soppiku te soppiku jot na te mën nañ koo soppi kon loolu war nañ koo soppi bu ñu ko deful nag tere bi yóbbu gaa yi suba gannaaw suba moom boo wutul danañu romb loolu nag ci gestub xel ñun loolu la ñuy may ci wàllu sàmm identité murit gi loolu tam war nañ cee liggéeyaat liggéey bu xóoto xóot tàmbalee ko nag ci dëkk bu di bii di Touba nga xam ne tey mandarga yu bare bari yoo xam ne nii moom la ñu xàmmee dëkk bi démb ak bërki démb mi ngi commencé di effacé wu ndànk-ndànk te mën naa am bàyyiwuñ ci xel kon identité bi war nañ cee gën a liggéeyaat jox ko dëkk bi waaye itam jox ko taalibe identité murit mooy lan mooy yitte ju kawe fexe ba ñun lii xëcc nit ñi détail yu ndaw ndawaan yi xëcc nit ñi di leen tardel nun waruñoo tardel kon pas-pas bu kawe yitte ju kawe jooju te mooy himmal aaliya war nan koo gën a dekkalaat waaye itam kàdd gu nekk benn loolu ci identité murit ci la bokk mooy murit kenn mooy wax bu kenn xasee wax ñi ci des ñëpp dañuy jëf mooy kilifa gi mooy wax ñi ci des ñëpp dañuy jëf loolu nag gis nañ ne am na lu ciy commencé dugg mooy kàdd yu bari yu jóg tey wuute léeg-léeg ci biir njabootu sëñ bi loolu tam defe naa ne war nañ cee gën a xalaataat nu ñuy fexe ba kàdd gu nekk benn ndax force yoonu murit moo doon kàddu gu nekk benn kon nag bu ñu demee ba gis ne ay kàddu ngi jóg ci biir tey wuute gis nañ ne liggéey war nañu foofu lu gën a boole rang itam war nañ cee gën a liggéey fexe ba ñu ñëpp ñu xam ne sëriñ bi benn la te mooy Serigne Touba ñun ñëpp ay ñu des ñëpp ay jawriñam lañ kon kuy xool xoolal ne buum gi ñu boole ñun ñëpp mooy Serigne Touba radiyallahu anhu misaal mi ñu ci joxe mooy ne yoonu murit mu ngi mel ne néegu ñax néegu ñax forme pyramide la amee booy dem ci kaw day gën di sew suuf gi day yaatu loo gën di jëm ci kaw muy gën di sew waaye ba demee ba ca kaw benn pucc nga fay fekk néegu ñax ci liñ xam ñun benn pucc lay am moo tax yoonu murit benn sëriñ la am mooy sëriñ Tuubaa ñi ci des ay jëwriñ lañ mooy balgandi yeeg laaj yeeg yu mel noonu ay jëwriñ lañ kon nag taalib yëpp nañ bàyyi xel ci ne ñun ñëpp dañoo war a soy jofi ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jaar ko nag ci jëwriñ yi loolu tam defe naa ne laaj na liggéey gën koo bennale ndax am na yu ciy dugg te xëy na choc des civilisations moo koy dugal mooy civilisation yu jaxasoo léeg-léegi moo ko ci dugal ci wàll nos ak nose war nañ cee yëngatu bu baax lu bare ñi ciy xaar tey man mentalité murit gi yenn murit yi nga xam dañ naan la murit du am programme murit mooy ku amul programme loolu defe naa ne mooy ñàkk dégg njàngale mi sëñ bi sëñ bi mooy koo xam léppam daf koo programme léppam daf ko organise ñun nag organisation nanu xam ne xaw nanoo manqué te suñ jotaay dañ ko ci gis lu baree bari mu wóor leen ne nos gi ak nosu gi moom des na ci fànn yu baree bari loolu tam defe naa ne war nañ cee gën a liggéey boo gisee tey ëppal ni mu feeñ ci ñun ba ci suñ ni ñu soloo sax léeg-léeg ëppal daf ciy feeñ ni ñuy doxee ëppal def ciy feeñ yëpp daf ciy feeñ nga gis ne kon nos ak nose moom war nañ cee gën a liggéey tey force bi ne ci loxoy murid yi kenn mënu koo natt ci kàttan moo xam kàttanu xel la moo xam kàttanu alal moo xam kàttanu pas-pas la waaye force nag buñ ko organisé wul maanaam facteur de faiblesse lay mujj nekk maanaam force point fort la waaye bu ñu ko organisé wul point faible lay nekk ci mbooloo moo tax il faut que ñu dellu ci li ñuy wax orthodoxie murit gën koo xalaataat na sëñ bi jàngale woon solidarité mottu leen de diggante murit yi ci force yi ñu jéem koo delloosi xëy na kon foofu bokk na ci point yi nga xam ne ni war nañ cee liggéey ni sëñ bi nose woon yoonu murit itam nga xam ne mag ñi ku nekk am na lu la sëñ bi féetale woon te yow lam la féetale woon nu manti mel daf laa neex ñii daf leen doon jàngale jàngaleloo ñii mu leen di tarbiyeloo ñii mu leen di demloo ci tool yi am na ñoo xam sax root ay ndaa la leen den dofloo am na ñoo xam taxan mat la leen daan def la te ku nekk sa mission da nga koo respecté woon di ja yëngu loolu tam defe naa ne lu mat a xalaataat la mooy ne mbooloo moo xam ne ni ñëpp ay def lépp mooma mbooloo mënta dox kon mission yi rôle yi dañ ko war a génn séddale xool ku nekk sa domaine de compétence ñu gën la fa dugal rolu jëwriñ tam lu mat a gën a bàyyi bàyyiwaat xel la ci yoonu murit mooy ne sëñ bi ay jëwriñ la amoon am na taalibe yoo xam ne nii jamonoonte woon nañu ak sëñ bi te xamuñu woon sax sëñ bi te ay murit lañu woon ñoom seen yi rek lañ xam jëw jëwriñ nag dafa mel ne dafa bokk liñ bëgg a effacer ci yoonu murit te muy ponk boo xam mën dañàkk ci yoonu murit tey boo demoon tey ci xalif kër kër xalif sana de murit xalifatul am le murit boo demoon ci këram tey gis raj rajloo beeg jaxasoo beeg lu bari ñu fay jaxasoo te ku nekk romb nga sa jëwriñ ñëw foofu te bu ku nekk yemoon sa jëwriñ liggéey bi dana dox te ramba maanaam jaxasoo du am ci biir kër yu mag yi kon poste jëwriñ defe naa ne lu mat a bàyyi xel bërki dem am na ku ma nettali ne dañu am dëkk bu ñu newoon ñoom seeni mag daan fa jóge am addiye ji ñu indi Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou ne leen barab bu ngeen di jógee ñu sàngam mu ne bu ngeen jógatee bu leen fa yem dem leen ci diw moom mooy jëwriñ moo tax loolu poste jëwriñ dafa am solo ci yoonu murit te dafa mel ni bokk na ci liy effacé wu ñu war koo delloosi kon xam naa ne yooyu yenn la ci yi nga xam ne ni bëggoon nañ koo joxe mu nekk tegtal ci li ci des kon daal buñ doon tënk dañuy wax ne yoonu murit dox na téeméeri at gannaaw bu fi sëñ bi bàyyi ko ñu gis ne yëngu-yënguloon boo xam ne ni beesal moo ko doxoon a jóg waaye defee na jamono defee nit ñu baree bari taxaw taxawaay bu dëgër ci kanam ay pexe noonam nga xam ne ni ñoo ñu féete woon kaw ci wàllu man-man ngànnaay waaye teewul pas-pas bu dëgër bi ne woon ci taalibe ak ci sëñ bi ak détermination bi ñu amoon ak volonté ferme bi ñu amoon tax na ñoom ñu notoon seeni noonu ba tey yëf yi ak si fii waaye nag ni doomu aadamay doxe ñu wax ko léegi jamono ju nekk dafa am ay défi yuy ñëw yoo xam ne nii xamuñ ko mu ñëw taxaw suñu kanam loolu nag li mu laaj mooy lan mooy ñu am vision bu xóot te tegu ci yoon waaye te am xerañteef gu kawe ba mën a teg stratégie bu leer nañ ngir mën a jàmmarloo ak ñi nga xam ne ni sunuy noon lañ leen di tudde te wàññi slogan maanaam shaaraat yi ñu wàññi ko te yokk gis-gis yi tey maanaam sëñ bi amul moroom slogan boo xam ne nii murit yëpp da koy wax waaye ndax ñun nun xool suñu bopp ndax am nañ moroom amuñu moroom ñun nañ fexe ba ñiñ jamonoonteel duñ doon seeni moroom loolu defe naa ne mooy gis bi nga xam ne nii moom lañu war a gën a am mel noonu tegtal rek lañu ci doon joxe ñu jàpp nag ne wàcce kàddu gi tey buñ iftara doon ne ñun sëñ bi dafa dellu siwaat jamono ci nii ñu mel nii ndax sëñ bi danañu soppiloo toogaay walla duñu soppiloo toogaay laaj bu xóot la bu jafee tont waaye man ngir ma tontu ci damay dimbandikoo waxi Cheikh Mouhamadul Mountakha moo wax ñun ñëpp ñu dégg mu ne ñun dégguñu sëñ bi dunduñu sëñ bi loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko wax ñun ñëpp ñu dégg man nag foofu laay sukkandiku nag sëñ bi bu dellu si waatoon jamono jàpp naa ne dana soppi lu bare bari ci suñu doxin dana soppi lu baree bari ci suñuy taxawaay ci yenn mbir yi dana ko soppi tàmbale ko ci jàng ak jàngale ak yar nga xam ne nii amu ci mel ni mu ciy joxeeti léegi lañ doon séentu ci jàng ak jàngale ak yar waaye tam dana soppi lu baree bari ci ay melokaan yoo xam ne nii mi ngi ci benn benn murit yi te lañ ca mën a wax la ci gën a tuuti mooy ne ay melokaan la yoo xam ne nii dëppawut ak dëkk bi dëppawut ak njàngaleem sëñ bi nga xam ne nii mi ngi ko sosoon ci ñetti was te mooy xam-xam bu sell ak jëfe xam-xam ak teggin yu ñu gërëm loo loolu lañ bëggoon tënk ci jataay bi di gërëm di sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Fallou jërëjëf ci kàddu yi rafet na na kàddu yi moom xanaa dama naan ko déggandoo amul lu ma ci mën a soof lu dul ne day wàññi rek euh, xiima ba kon ma koy bàyyi loolu te jàll ci leen xam naa daal li nga daanele moom xaw naa doy waar waxoon nañ ci tàmbali bi ne laaj bi ñëpp war laaj seen bopp saa yu ne mooy man fan laa tollu sëñ bi maanaam lu suñ bi teewoon tey wala boo ko gisoon ci bët nan ngay euh, comporté woo ndax danaan la baax na nii doxalal wala boog soppi lii wala yow li ma nekk ak la ma wooteeg la nga nekk bokkuñ loolu nag conclusion bi yaa ko joxe su Muntaxa wax na ci dara te muy lu am am solo yaakaar naa kon euh, fii yëpp yi gën a war a jeng jëm mooy jàngal njaboot jàngal leen ndax fekkee ne dañoo wax ne yoonu murid du aw du ab du aw yoon du ab tariqa te loolu ñu ngi ko sukkandikoo ci waxee suñu Fallu mu wax ne ku baax ki dafa ñëw ngir yeesal lu fi nekkoon kon bu nekkul tariqa lu mu doon yeesal li fi yonent bi alayhi salaam bàyyi woon te fi yonent bi alayhi salaam bàyyi woon aw doxin la aw nosin la waaye nekkul ay jëmm wala boog luy feeñ ci luy feeñ ci jëmm na nag ci biir na feeñ ci doxin waaye du feeñ ci mbubu du feeñ ci yeneen yu ni mel léegi nag foofu jàpp naa ne solo si fi muy am mooy rek insisté waat ci delloo nit ñi ci yëf yi ndaxte ki nga xam ne xamul lenn lislaam xamul dara lislaam moom daal gis na aw nit wu ñu wooye ay jullit ñu leen di euh, te saa yu gisee benn congum terroriste am ñu ne ñu ko def ay jullit lañ te xamul lenn jullit kooku boo bëggee def ci boppam ne ko lislaam ak terrorisme ànduñ du yomb a layal murit bi fekkee ne saa yoo gisee yu bare bari yoo xam ne yellul di am dañ ne murit yee ñoo ko def ki nga xam ne xamul lenn murit xamul cëslaañu murit jàngu jëfee boo ko bëggee wax lii di murit dana jafe dugal ci boppam boobaa nag yaakaar naa kon yëf yi suñ yëf yi biir la njàng mi nag jàpp naa moom mbir la moo xam ne mu mu mu mu jàmp jàmp la bërki démb ku ko wax sañ koo wax wax na bu junj njàng mi wax ju bëree bëri tegawaat ci ay commentaire commentaire yooyu nag jàpp moo ne sax yëpp yu négatif la waaye li ci ëpp solo rek li muy firi rek mooy ne dafa nekk question boo xam ne ñëpp a ngi koy xaar te ku ne am na ci xalaat bu taxaw boo xam ne war nañ cee xalaataloo daal bu ko defee am ci solution yoo xam ne yu lii la ndax kat murit gi li wér te wér mooy ne bi fi ku baax ki jógee bu weesoo jumaay daa bu weesoo euh, daara yi nga xam ne ku baax ki moo ko sampoon daarul murit gi moomaat li ci des yëpp li muy am am solo ay initiative personnel la sëñ sëñ Mourtala am na fi al azhar mu liggéey liggéey bu am doole suñu cheikh jiitu woon na ci waaye yooyu yëpp école ay murit lañ yu ak ak murit moom ak kilifa ak murit moom ko waaye murit gi moom ko boobaa nag kon lan la murit gi moom ci mu njàng lan mooy gis-gisu murit gi ci njàng lan la murit gi bëgg a lan la bëgg bu ab gone gi juddoo ci këru murit gi màgg ba nekk mu kàllaf nan la bëgg mu mel ko nan la bëgg mu xam ko jàpp naa loola ay mbir la yoo xam ne xawma ay assises des laaj wala lu mu laaj waaye yaakaar naa ne tôt ou tard nañ ko waxtaane yaakaar naa nag bokk ciy jàmp euh, tudd nga fi benn la kàddu yi tudd nga fi benn jubal sàppe yooyu du ma ci dellu siwaat maa ngi ñëpp ko déggandoo yaakaar naa ne ñoo ma gën a neex xel xanaa rek euh, comme waxtu bi dafa xat te timis léegi mu jege dañuy wéyal sant ñenn ñi nga xam ne ñoo fi teew ci euh, mbooloo mi xam naa ne des ci tudd ñenn euh, waxoon nañ ci tàmbali bi ne commit d'organisation bi lépp lu Muxaddamatul Xidma di amal ci jamono yii ñoom la ko àndal kon seenu cant wala cantu Muxaddamatul Xidma ci kuréel bi moom amul fu muy yem euh, daairatu Dawratu Rayaahiin ñoom it dañu leen sant sant gu amul fu mu tàmbalee teewal nañ fii ak délégation bu mag a mag suñu Cheikh Mbacke Gaynde ma ñang moo ko jiite kuréelu sàmm war may tuuba ñoom it signal yu Fall jiite leen ànd ko délégation teew nañ fi suñu Cheikh Mbacke Guédé teew na fi suñu Mbacke Abdourahim Dem al imam teew na fi kuréel liggéeyal ku tedd gi ñoom it am nañ fi ku leen fi teewal daayatu wilaaya bu Daarul Xudduus suñu Ahmad Ndiaye Ngiraan ak suñu Ibrahima Kane teew nañ fi euh, sëriñ Moussa Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada sëriñ Cheikh Baara Abdoul Karim imaamu Guy Mbind teew na fi sëriñ Modou Baara Mbacke moom Cheikh sëriñ Abdoul Khadim sëriñ Cheikh Bousso Maram sëriñ Omar Bousso moom sëriñ Modou Khari Bousso soxna Mame Anta Mbacke sëriñ Cheikh Bousso Param sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mamor moom sëriñ Fallou sëriñ am moom Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Chérif moom Cheikh Mouhamadou Fadal akademi Daaru Salaam ñoom it am na ku leen fi teewal sëriñ Xaadim Silla moo leen fi muassasatul Wafa bu Daaru Muxti yi sëñ Abdou Khoudous Mbacké ak sëñ Modou Kara ñoom ñoo leen fi teewal sëriñ Cheikh Ami euh, ummi maa ngi jéggul moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom mi ngi fi su lamul wusuul sëriñ Saliou Bousso moom sëriñ Makhtar moo fi teewal ak sëriñ Cheikhouna ibnu sëriñ Baaxir sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu Cheikh euh, suñu Cheikh moom mi ngi fi euh, sëriñ Cheikh Bousso Assane al imam sëriñ Cheikh Kala Bousso ci ñi fi teew waaye bala ñu jàlle kàddu gi te kàddu gi ci tege mooy kàddu daayira bi su ñaafee al imam mi ngi fi bala ñu ko jox kàddu gi nag dañuy fàttali nag daayira bi ci weeru safar wii lii lenn la ci rek ci li muy amal ci ay programme depuis 9 safar ba keroog 14 safar dina am ay waxtaan yoo xam ne da koy amal ci barab bii ak ci biir jumaa ji am na tamit benn exposé exposition boo xam ne danañ ko amal ci ëttu jumaa ji dañ koy amee at mu jot exposition boobu ren suñ Mbàkke Bousso lañ ko jagleel teewul nag dana am yeneen yoo xam ne moom du dañ naka jekk jumaa jeeg li ci aju fan la jaar ñu fi doon jiite ñun ñoo fi doon noddu ñi ko daan taxawee ba di ko saytu loolu lépp itam dana aju exposition bi tem général bi mooy jëmmi jumaa ji waaye at mu jot am na kuñ koy euh, terale ren ñu jël ñu jël suñ Mbàkke Bousso suñ Mbàkke Bousso te muy lu yàlla yàlla ku natt xibla jumaa ji jàpp naa ne euh, kenn gënu laa yàlla ci jagleel la lu ñu jëmmi jumaa ji exposition boobu le 15 lay ubbi bu màggal gi desee ñetti fan ba ñaar fukki fan ci safar fii lay yem euh, almadhaful islaami euh, alxadimi suñu sëriif tuddoon nañ ko ne teew na fi waaye dañ bàyyi xel dafay teew tamit ci turu boppam waaye ci turu almadhaful islaami alxadimi mooy musée bi nga xam ne moom la suñ Muntaxa joxe ndigal ñu war koo defal ñu def war ko def fi Tuubaa tuddee ko kër barkeel yi kon ci lu dul yàggal dañuy jox kàddu bi Cheikh euh, Serigne Afé al imam mu wax ci turu daayira bi waaw bàyyi laat mooy wax ci turu Serigne Afé bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu sëriñ Afiya Buso mi nga xam ne mooy njiitul daairatu muqaddamatul xidma kàddu yi nag xëy na kàddu yu gàtt lay doon di kàddu yu cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci daayira bi ci turu sëriñ Afia mu jëme ko ci kilifa gu mag gi di as cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ci ab taxawaayam ci yoon wépp ab taxawaayam ci diine ji ab taxawaayam itam ci mbooloo mii di daairatu muxaddamatul xidma nga xam ne naka jekk daf leen mas a jàpp ñuy njabootam moo yàgg leen taxawu yàgg ànd ak ñoom ci lépp lu ñuy def diirub jamono yi nga xam ne sëriñ Saalimu mi ngi fi te daayira bi sosoon ci jamono jooju ba fii mu ne ñoo sëriñ Muntaxa fu ñu mas a toll rek ñoo fa ànd toll kook moom mu di ñu taxawu di ñu jàppale di ñu dimbale féete ñu fépp ba yàlla def tey jii mu nekk ci kanamum yoon wépp waaye loola dafa gën a feddliku dara wàññikuwu ci loola moo tax ñu ngi koy seereel bokk yépp di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax te di ko ñaanal suñ borom gën ko fee yàggal te gën koo dëgëral mottali ay yéeneem te nu ànd kook moom di sant sëriñ ba Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk euh, kàddug yoon wi waaye dénk ko it muy taxawu màggal Tuubaa gi te diirub bi comité organisation bii juddoo ak léegi toll ci fukkaat ak juróom-benn wala juróom-ñaar booba ak léegi mu jël confiance bu mag jagleel ko daa daairat muxaddamatul xidma ànd ak moom ci liggéey bi lépp lu muy taxawu mu boole ñu ta boole ñu ca te doyloo ñu ca doyloo bu mat sëkk loolu itam ñu ngi koy seereel ñëpp di ko sant moom it te di ko gërëm tey ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim suñ borom defal ko ndam gën koo defal ay ndam yu bari ci liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu teg ci loxoom waaye day jaare ci moom nag di sant comité d'organisation bi tàmbalee ko ci sëriñ Ousmane mi nga xam ne moo nekk ci bopp comité bi waaye di ko jaarale ne ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mii toog nga xam ne moo yore commission communication ak culture te lii ñuy def ñi tey jii mu bokk ci yi nga xam ne ay programme la yoo xam ne ñoom ñoo ko jël dugal ko ci seen biir programme mu màggal waxtaan wi naka jekk daana am waaye bi comité bi ñëwee daf koo jël dugal ko ci biir programme màggalam di ko saytu ni muy saytoo ay waxtaanam di ci taxaw taxawaay bu rafet ba mu agsi fii mu agsi tey jii kon loolu mënuñu leen a ñàkk a sant sant sëriñ Abdul Ahad sant it sëriñ Ahmad Badawi mu jiite Rawdu Rayaahin ci wàllu culture bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal liggéey bi yépp ci tuuru sëriñ Afiya ñu ngi leen di sant di ko seereel mbooloo mépp waaye ñuy sant mbooleem kilifa yi fi teew te sëriñ Modou euh, mi lii mu leen léegi euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant it mboolem daairatu Muxaddamatul Xidma ak ay bànqaasam yépp yi nekk ci biir réew mi yi nekk ci bitim réew mi euh, di wax ne rek euh, taxawaay yi nga xam ne moom la daayira bi di taxawee ci biir màggal gi taxawaayu tey jii daf cee bokk benn la ci waaye day waajal màggal gi ci wàllu set ak defaraat yépp jumtukaay yoo xam ne yàqu na te loolu mu ngi koy tàmbali ci benn fanu safar ba ba ñuy àgg ca màggal ga gàttandu màggal gi ci ay waxtaan yu diine lu toll ci juróom benn waxtaan yoo xam ne bii ñu def ni tey jii benn la taxawu ñuy ñëw ci jumaa ji ci màggal gi moo xam dañuy julli si moo xam dañuy siyaare si ba kenn ku nekk la ko tax a jóg mu defee ko nam ko bëggee te du ci am benn jafe-jafe sàmm it catab jumaa ji ak warma ji diirub màggal gi loolu itam lu ñuy bàyyi xel lay doon di amalit ab exposition mooy ab gaaral boo xam ne dañ koy def ngir xamle jumaa ji ak lenn ci njabootuk sëriñ bi ren gi ñu dara jaale ko sëriñ Mbàkke Bousso fas ci yéene gaaral ak dundam ak ay taxawaayam ci yoon bi waaye ak ci jumaa ji lii lépp nag ñu di ko waajalee màggal gi tax na danañu jël lu toll ci junni nit ak juróom-ñaari téeméeri nit yoo xam ne danañu nekk ci barab bi waxtu yëpp di taxawu liggéey bi ngir ñu mën koo amee ci nañu gën a mate gën na rafete junni nit ak juróomi ñaar téeméer yi nag suñu ko waxee mooy ñi nga xam ne rek dañoo bokk ci daairatu muxaddamatul xidma wala ñu ànd ak moom di jàppalante moom ci liggéey bi waaye am na yeneen i kuréel yoo xam ne it daayira bi daf leen di saytuwaale ñuy nekk ci biir ame ay taxawaay yu am solo ci liggéey bi lu mel ne sécurité yi lu mel ne faj mi ak yu ni deme yii daal ci gàttal ci tënk mooy taxawaay yi nga xam ne moom la ñu waajal ngir màggal gi ñu dellu nag di sant kilifa yépp góor ñi ak jigéen ñi ñépp gis nañu taxawaay bi teewaay bi rafet na lool mat na sëkk ñuy ñaan ñu daje ci ngërmu Sëriñ Tuubaa te fekkewaat ko at yu at yu bari wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Abdoul Ahad xanaa di ci profité rek ngir dalal Cheikh Bachir moom Cheikh Abdoul Qadir euh, egsi na léegi jitaay bi kàddu gu mujj gi moom lañ koy jox ba lañ ko ko jox dañ ci profité tamit sant Cheikh Ahmad al Badawi moom sëñ Fàllu teew na jitaay bi euh, waa Hizbut Tarqiyyah tamit cant gu amul àpp la ñeen amal teew nañ fi ci njiitu sëñ Mourtala sëñ Mourtala sëy ànd ak ab délégation bu mag a mag sëriñ Siidi euh, moom sëriñ Seex Lo sëriñ Jiili moom sëriñ Seex moom it teew na fi sëriñ Siidil Muxtaar mu Seex Abdul Xaadir moom it mu ngi fi ak waa sëriñ Njaay Gede ñoom it euh, seen xalifa sëriñ Ibrahim Ndiaye moo jiite seenu délégation ñoom ñëpp ñu leen di sant ku daayira bi tudd ak kum tuddul ngërëmam ci yow jiitu na tey santaat rek di ko seedal siñ bi commité d'organisation bi ni ñu ko waxee du ren la jiitu te xam naa du mujj ni nag incha allah cant gu amul àpp lañ leen di sant ndaxte mboolem lu ñu amal ci màggal gi ci seen tur lay am mboolem lu ñu fiy def ñoom ñoo ci jàpp mu mën a sotti te jàpp ni jéggi na dayoo kawe na njort xam naa kon rek fi ñu daaneele kàddu gi mooy jox suñu euh, Cheikh Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mu tëj jotaay bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk jullit yi bokk taalibe yi waa daayira muqaddamatul xidma ñu ngi yëkkati kàddu yu ak kàddu yu cant ak ngërëm ko ci yéen ci ndugalul ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ndax liggéey bi yëpp moom lañ koy defal xam naa bala dugg ci kàddu yi ñu siyaare suñu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp xam naa buñ mën a lim ñëpp waaye buñ limee Serigne Sidi Mbacké mu Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi Serigne maa ngi jéggal ko ah sëñ Serigne ñoom ñaar ñaar ku ci waaye jégalu kon ñu ngi nuyu damaa si dee sax xëy na woo noonu kon ñu ngi nuyu gin ah ah loolu xaw ma woon kon ñu ngi siyaare bu baax Serigne Serif Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Fadil di teg nii ak siyaare bi ci loxoom. mu àgg ci mboolem mbokk yi fi teew yëpp te buñ ci tuddee Serigne Sidi Mbacke bi Cheikh Abdou Khadir tudd ji Serigne Ahmadul Badawi tudd yi ci sëriñ Cheikh Abdou Mbacke mi nga xam ne moo yor ci wàllu comité organisation bi di siyaare Serigne Cheikh Oumy Mbacke bi Cheikh ak Cheikh Gade ak ah, si ak si ah maa ngi jégalu jégalu te di ko maa lay suñu saa yu wax ne. am na ko sëñ boo xam mu ne ko mbàkk maa ngi jégalu ba mu defaate suñu yow bu baax la waaye diisu ci dëkk waaye nag ñu ngi jégalu moo tax waaye boo xasee yoon moom boo xasee tudd kii mag rek ñëpp tàbbi nañ ci biir di jël nuyoo bi ak cant gi yëpp di ko teg ci loxo Serigne Afia Bousso al imam moom mi nga xam ne mooy kilifa daayira Moukhaddamatoul Khidma ak mboolem ñu topp ci ginnaaw yëpp di liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji. ñu am tawféex juré ji te at mu jot ñu di ko def te di ko sellal ndax jumaa ji xam ngeen ni du du liggéey bu yomb ndax mooy jubluwaayu taalibe bi yëpp ak murid yëpp ku agsi ci ci jumaa ji nga kon nag sellal gi koy sellal fexe ba góor ñi jéeg ñi duñ jaxasoo doon na leen liggéey fexe ba sàpp yi du tolloo fexe ba lépp loo xam ne méngoowut ak war mooy barab bi ñu feexe ba mbañ fi am loolu lépp liggéey bu rëy la boo xam ne eh, na ngeen xam ne taw tawféex la ju leen suñ borom defal ci biir liggéey suñ tubaab kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ak cantub bi yëpp nag ak murid yëpp ci seen taxawaay bu rafet tama mat ci seere ndax amuleen guddi amuleen bëccëg waxtu ne seen yitte jëpp yéen a ngi ko jëmee ci liggéey sëriñ tubaab ci jumaam ji nga xam ne mooy di ko gënoon a ñor ci àdduna di li liggéeyam bi mu gënoon fonk kon ñu ngi leen di ñaan bu baax yàlla dimb dimb leen dool leen kàttan ak ba ngeen yàgg a taxaw liggéey bi te yàgg cee gën a am ndam yëpp yi ngeen ci am te lépp ngeen day cee ngër mu Sëriñ Tuubaa te tabbi ci waqti hawaa'i jalisina daamu fii xidmati wa hab lahum aram dafa mel ne nag nodd nañ ba timis jàng jot kon xam naa ñu jeexale foofu kàddu yi bala ñoo noddu koy fekk ci biir kàddu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah kon jërëjëf sëriñ bi ci kàddu yi naa kon foofu dañuy yëkkatee jitaay bi ñaanalante ba jëm jamono insha allah jërë ngeen ci jazakumullahu xeyr ñuy tëj exposition bi. Mhm. le 15 ginnaaw xanaa di fàttaliwaat rek ci waxoon nañ ko léegi ne exposition bi le quinze lay lay tàmbali waaye quinze ginnaaw gee 15 safar ginnaaw gee lañ koy ubbi.